Euh, mbokki téléspectateur Daara Koki TV fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ngi leen di nuyu di leen ziyaara seen mbokk daam ko la ngeen àndal ci doxantuy ramadan ñu tuddee ko rafa nafahat ramadaniya ala daw il kitaabi wa sunna di ci eh, nafar ak yéen tey tomb boo xamante ni moom la ñu tuddee samarat eh, at taqwa meññet mi nga xamante ni moom la ñuy góobe ci taqwa jooju nga xamante ni seen borom subhaanahu wa taala wax na ni buñ wooree weeru koor ba àggal ca moom lañ ciy jëlee comme résultat taqwa boobu nag dafa am ay meññet yoo xamante ni buñ xoolee Alqur'an ak sunna istiqraa ko jàngat ko bu baax a baax a baax a baax dañ ci fekk yu baree baree baree baree baree yoo xamante ni ay meññet la yoo xamante ni dafa jóge ci taqwa boobu noonu waaye nag ñun dañ koo bëgg a tënk rek def ko ci fukki tomb waaye balaa booba baat bi ci boppam euh, al imaam Abdul Hamid Kisk euh, rahmatullahi alayhi yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko ak mboolem mm, duwaatu uh, lislaam yi ñu mel ni moom ak ñi ko jiitoog ñi des ci ginnaawam ñëpp dafa wax ni ramadan kalima mukawana min xamsati ahruf mu ni arra wal miim wal daad wal alif wal nuun mu ni arra rahma wal miim maghfira والضاد ضمان من ضمان دخول الجنة والألف أمان من النار والنون نور min allah al-aziz al-ghaffar mu ni ramadan juróomi araf la baat bi e, séddali ko raa gi mooy raxma yërmande la gi magfira njëggal la boot gi moom mooy am e, sécurité garantie ni da ngay dugg àjjana alif gi moom mooy nga am kóolute ci ni doo dugg sawara waaye nuun gi moom mooy nuur leer goo xamante ni moom ngay doxee ci saw yoon wu gudd woowu noonu waaw bu ko defee ci euh, meññet yooyu nga xamante ni moom la ñuy góobe ci Ramadan comme niñ leen ko dige woon euh, bokk na ci yi ci njëkk ki nga xamante ni dafa dem ba àgg ci euh, martabatu taqwa day am hadiyul kitaabi kitaabillahi subhanahu wa taala suñu boroom mi ngi wax ci euh, tàmbalib suratul baqara alif laam miim dalikal kitaab laa rayba fii hudal lil muttaqin muy euh, al téere boo xamante ni euh, nekk na ci biiram ak njub ñeel ñan ñi nga xamante ni dañoo dem ba àgg ci martabatu taqwa ñoo ñu ñooy am hadiyul quraan boobu noonu hadiyul kitaab waaw bu defee loolu ci meññet yi nga xamante ni moom lañ ci njëkk a góobe ci euh, euh, taqwa googu nga xam ne seen borom nee na bu ngeen wooree ba àggal di ngeen ko ci jëlee kon ndekete ihdina siraatal mustaqima dañ doon ñaan saa suñuy jàng faatiha euh, ci seen rakkaay yëpp ndekete bokk na ci li nga xamante ni moom moo ñu koy may mooy ñu woor weeru koor nit ñu ko santaane ndax buñ ko defee noonu rek dañ ci daal di am hadiyu googu nga xamante ni moom la alquranul karim làmbo kon hudan lil muttaqina mi ngi noonu Euh, ñaareelu meññet mi nga xamante ni moom la ñuy jëlee ci euh, Ramadan moom mooy an am maiyatullah yàlla ànd ak ki nga xamante ni moom moo àgg ci martabatu taqwa te moom mooy wattaqullaha waalamu anna allaha maal muttaqin na ngeen ragal yàlla te ngeen xam ni yàlla moom toujours mi ngi ànd ak ñi nga xamante ni ñooy woy am taqwa ñetteelu meññet mi nga xamante ni moom la ñuy góobe ci euh, taqwa boobu boo ca àggee moom mooy seen borom subhaanahu wa taala foo toll mu lay xamal doonte que defoo ay kërt kërt di jàng ka sonn ka laaj ka bind ka enregistré yàlla moom moo lay sol li nga xamante ni saa soo foo toll rek war a am ca xam-xam boobu yàlla seen borom subhaanahu wa taala roof la ko muy wattaqullaha wa yuallimukumullah na ngeen ragal yàlla bu ko defee yàlla xamal leen euh, lu ngeen xamul woon loolu moom mooy ñetteelu tomb bi Euh, juróom ñeenteelu tomb bi moom mooy nga dugg ajjana am ajjana joo xamante ne arduha samawatu wal ard sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci suratu ali imran euh, wa saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat li e uiddat lil muttaqin yoo xamante ne dañ ko waajal préparel ko defar ko ba mu jekk ñeel ñi nga xamante ne dañoo amee euh, taqwa kon ñi nga xamante ne àgg nañ ci martabatu taqwa ñoom ñoo moom loolu bu ko defee beneen bi moom mooy sunu borom subhaanahu wa taala dalay ubbil barke asamaan ak euh, suuf euh, mooy juróomeel euh, meññet mi nga xamante ni loo def rek yow da nga cee daal di am tawfiq boo xamante ni am ci loo xamante ni nit ñi dañuy yéemu ci say mbir ndax loo def rek am loo dugg rek daal di cay génn Euh, bu ko defee euh, nin ñi naa kii dafa am wërsëg kii dafa am nangam nangam fekk boobu da ngaa nekkal yàlla nekk yàlla nekkal la ndax man kaana lillahi kaana allaahu lahu walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard kon loolu tamit dees na ko jële ci taqwa waaye taqwa googu tamit day tax sunu borom subhanahu wa taala lépp looy dugg rek euh, dala cay daal di defal am faram-fàcce leera la yoon wi ba nga xamante ni yow doo dugg ci loo xamante ni day am résultat boo xamante ni da ngay dar sa gémmiñ naan lii nangam nangam bu ko defee suñu borom subhaanahu wa taala dalay euh, teel a xamal orienté la lépp loo ca war a def nga def ko lépp loo ca war a wax nga wax ko waaye loo ca war a moytu ci wax ak jëf nga daal di koy def mu ko defee loolu moom la suñu borom subhaanahu wa taala di wax ci suratu euh, euh, al anfal ya ayyuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqaanan te leen di defal furqaan taqal leen diggante dëgg ki neen diggante ay eh, loo xamante ni eh, lu baaxak lu bon diggante loo xamante ni war ngeen ko def ak lu ngeen war la def yooyu yëpp da leen ko waaye nag du ci am ci loolu wa yukaffiraankum sayyi'aatikum wa yaghfir lakum da leen di jéggal nëbbal leen seeni ñaaw ñaawteef waaye jéggal leen seeni bakkaar kon loolu tam des na ko ci jële ci eh, taqwa beneen tomb bi muy juróom benneelu tomb bi wala juróom ñaareel bi moom mooy Euh, taqwa googu buñ ca àggee dañuy am mahabbatullah yàlla dañuy bëgg waaw ki nga xamante ne àgg na ci martabu boobu yàlla da koy bëgg bëgg waa ji nag waa ji bëgg la moom moo ko gën a wóor waaw bu ko defee ki nga xamante ne nag moom dem na ba àgg ci marxalatu taqwa seen borom subhaanahu wa taala da koy bëgg loolu la euh, seen borom di wax ci suratu tawba ci ay béréb inna allaha yuhibbul muttaqin seen borom subhaanahu wa taala dafa bëgg ñi nga xamante ni dañoo amee euh, taqwa boo ko defee loolu tamit euh, beneen tomb boo xamante ni meññet la wuñ war a mën a jële ci taqwa moom mooy seen borom subhaanahu wa taala day yombal da lay yombalal wërsëg foo toll rek loo wut rek dangay ngay daal di am te boo amee tam da nga koy dugal foo xamante ni day am njariñ maanaam nga réaliser ci lu tuuti loo xamante ni lu rëy rëy la ci ci ci athar bu ko defee loolu mas na ko jële ci suratu euh, at-talaq man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu laa yaxtasib képp koo xamante ne da ngaa ragal yàlla yàlla loo dugg rek dina la ci wutal euh, génnukaay mbir lu mu ñàng-ñàng lu mu garaaw garaaw lu mu euh, tànk-tànk lu ca bari bari sunu borom subhaanahu wa taala yow dina la génne ci situation boobu ak nu mu mën a mel bu ko tamit wal wërsëg da koy yombal ci yow ba nga xamante foo yaakaar wërsëg dina fa jógee foo ko yaakaarul fépp seen borom subhaanahu wa taala dala fay wërsëgale te yaakaar naa doomu aadama bi nag euh, loolu ci wàllu addina assaayu ah, euh, li li li li li nay li dërhamil euh, maat wala maash loolu yaakaar naa moom mooy li nga xamante ni moom mooy ñaari tànk yi muy doxee li tahsili dërhamil maash ak tam nay li sawaabil maat loolu lay lay doxe te ñaar yooyu yëpp benn bu ci bu mu ci doon rek ba àggee ci taqwa seen borom subhanahu wa da ko koy garanté loo tax ci kanam euh, ci saar bi même dinañ ci dégg ñu ni wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi seen borom subhanahu wa taala day jég koy jéggal ay bàkkaaram waaye wa yu'zim lahu ajra mu fay ko yool woo xamante ni bu màgg a màgg la boo xamante ni bu rëy la boo xamante ni bu euh, am dayo bu defee loolu tam bokk na ci e, tomb yi nga xamante ni wala meññet yi nga xamante ni moom lañu mën a wette ci e, taqwa boobu e, tomb bu mujj bi ci meññet bu mujj bi ci taqwa ci liñ tënk moom mooy taqwa googu moom mooy misaanu tafaadul moom mooy balance bi nga xamante ni moom la ñuy natte ndax nit ki moo gën wala nit kee moo gën sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi koy wax ci suuratul xujuraat yaa euh, inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen gën a tedd ci yéen daal cee yàlla mooy ki nga xamante ni moom moo gën a ragal yàlla kon gis ngeen ni euh, taqwa googu moom la seen borom subhanahu wa taala samp mu doon balance boo xamante ni wala nattuwaay boo xam bu ñu bëggee xam nit ki nu mu toll ci ab dayo ci seen borom subhanahu wa taala euh, foofu lees koy xoole loolu tam mooy mooy xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa di wax xadis bu xaw a gudd la faram fàcco diggante naar beeg ajam beeg arab beeg ku ñuul keeg ku weex keeg yooyu yëpp ba àgg ci ni la fadla li arabiyin ala ajamiyin waaye illaa bi taqwa lu dul ci ragal yàlla waaw kon bu ko defee ngëneel ndekete ñi ngi koy xoole ci àgg ci marxalatu taqwa boobu nga xamante ni moom la seen borom subhanahu wa taala wax ni bu ñu wooroo weeru koor ba génn ca dañuy àgg foofa noonu am garaat boobu noonu yàlla lañ ci yàlla boole ñun ñëpp ñun ñuy wax ak yéen ñi ñuy seetaan ñëpp ak mboolem jullit rek ah, yàlla defal ñu tawfiq ba nga xamante ni dinañ ko mën a ko wooree niñ ko santaanee moom suñu borom subhaanahu wa taala waaye lépp lu mu ca daale ci ab yoon yàlla nañ ko defal defal leen ko ñi ngi leen di jox dig daje incha allah suba ak jàmm ci beneen ah, doxantu Ramadan. yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du